dañoo ñëwoon fii préfecture doon déposé suñu liste euh, liste départementale bu Yewwi Askan Wi ñu ñëwoon fi nag am fi lu ñu fi fekk loo xam ne ni jaaxal nañu ndaxte ñun dañoo bokk ci benn parti boo xam ne dafa bokk ci Yewwi Askan Wi muy douze parti fukki parti ak ñaar euh, depuis trois mois ngi nii ñu ngi daje di toog di waxtaan di réunion ñu jëlee foofu benn circulaire jox ñu ko ñun ñu ciy liggéey. en tant que coordinateur yoo xam ne nii ay coordinateur départemental yi nga xam ne ñoo nekk ci ñoo composé coalition bi nekk ci département bi bi ñuy demee ba installé seize communes yi def li ñu war a def lépp ñu dégg ñu ne am na ko ñu wax sëñ Fallou Mbacké xam nañ ko bu baax mu dëkk Touba euh, moo nekk euh, président départemental bu moo nekk conseil départemental bu Mbacké ne mu ngi ci euh, coalition bi ñun bi ñu ko woowee ñëwul waaye toog nañ pendant un 15 jours yoo xam ne mënta ñëw ci réunion bi ba fii may wax yow mësta toog ci réunion bi benn yoon la fa mës a yónnee waa ji di woote pour ñu fekk ko këram te fekk ñun duñu ko fekk këram biñ defee li nga xam ne def nañ ko ba pare mu jéggi fa coalition bi dem déposé mandataire dem déposé candidature am fële ci ca kaw déposé waatam mandataire am foofu ci kaw euh, ba bii ci guddi laa dégg ñu ne am na benn yo déposé na mandataire bi ma ñëwee ci préfet fekk man préfet déposé naa depuis le 28 ba mu jox ma notification bërki démb ma ñëw déposé fi pour bu préparer suñu liste mu jox ñu benn récépissé benn fiche de dépo ah tey ci suba ma bi ci guddi ma dégg ñu ne Sëñ fàllu mandataire départemental bu Yewwi Askan Wi bi ma ñëwee di wut ay information ci moom mu xamal ne ma dëgg la noonu la demee ma laaj ko lan moo waral loolu mu xamal ne ma kat ñoom ñëw nañ fi ñaari yoon di déposé waaye nangalu leen ko troisième fois bi lañ ñëw wax ak Déthié Fall Déthié Fall woo ko waaye def ne moom comme que administration la fi nekkal xamul woote téléphone li mu xam mooy bind parce que sëñ Mourtala bind bu soo indi na fi eh, leetar boo xam ne ci yewi askan wi la jógee muy leetar bu wér leetar rek moo ko fi mën a jëlaat Déthié Fall bindel ko benn leetar signé ko mu wane ne man sama candidature jàllul may bëgg waaye Yewwi Askan Wi na leen lu ëpp tuur ñoom leader yi li ma leen di xamal itam mooy ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ko choisir ci département bi def ko candidat nañ taal seen i oto jël seen i moyens ñëw ñëw campagnal ko fii ci département bi. parce que sëñ Fallou moom amul lu muy wax def na fi sept yoo xam ne wóor na leen wóoru yàlla ne amul bilan ci amul lu muy wax askan wi parce que tooñ na askan wi liggéeyul leen ba pare nekk di foyee askan wi. dem na ci yeneen coalition yoo xam ne ni bëggoon na koo jiite foofa jaaxal ko moo tax mu ñëw jàpp ne Yewwi Askan Wi mooy bunt bi gën a gaaw ci moom ñi leen di xamal ne ñun ñi nga xam ne fukki parti ak ñaar yi nga xam ne ñoo composé coalition bi danañ génne suñuy oto génne suñuy ay moyens fépp fu ñu jaaroon ci commune bi danañ fa jaaraat seize communes yi nekk ci département bi danañ fa jaaraat ba nga xam ne Yewwi Askan Wi seen candidat bi ñu teg muy sëñ falu Mbacké ci département bi du jàll fii may wax ak fii may wax ak yéen am na cinq communes yoo xam ne pour le moment moom folklore nañ leen léegi nag xeex bi day soog a door ñun ñi nga xam ne ñoo composé coalition bi danañ fas yéene fu suñ Fallu Mbàkke dem baa ñu demoon fa danañ fa dem fu mu demul danañ fa dem xamal la neen suñ Fallu mi nga xam ne moom lañ def moom lañ def candidat tekkiwu fi dërëm moo tax muy wut coalition bu muy làqu buñ danañ ñi ngi waxtaan ci suñu biir yitteel nañu ndax ñi ngi waxtaan ci suñu biir waaye li ma lay xamal mooy su ñu demee ba ca kanam danañ xool candidat bi nga xam ne jàpp nañ ne moo gën ci département bi ñu soutenir ko ñu soxlawuñ dara li ñu ñor rek mooy askan wi non du nekk yow yi du nekk yow yi parce que yow yi moom tànn nañ benn waaye boo xam ne ni ñoom xam naa danañ ko jéem a sooy